kii Cheikh Seydou El moo wax ci alquran ne maanaam sax min aayatin aw nunsiha bi xayrin minha aw misliha yàlla nee na fu ma def lu baax yomb naa di ko fa jëlee di fa def leneen dama fay def lu ko ma def fa lu ko niru kon fa tabaarakallahu ahsanal xaaliqiin yàlla yàlla nangu leen yonent bi sallallahu alayhi wa nañu wér péng ne mu ngi ànd ak ñun ci guddi gi waaye nañu wér péng ne Mawlaaya sa Seyda Jomoor Dramé mu ngi ànd ak ñun ci guddi gi demut dafa làpp waaye lépp lu ñu nekk nañu xam ne ñun ak moom ñoo ci bokk nekk yàlla ñu ko yàlla fayal dafa am génn góor guñ dana wax alaa jaxan leen njaay mu dëkkoon njaayeen saa jëkku doon taalibeek maam aada toob rahmatullahi alayhi Alaaji Aliou Ndiaye dafa am ay xaq muy bay bu nawet wàccee dana am paasu màkk waaye balaa aj ñëw rek xaalis ba mu def ko ay at dem ci maam aada toob rahmatullahi ali ne ko man de sëriñ bi aj yi yëpp su ma bayee dana am paasu màkk waaye balaa aj gi jeex rek sa xaalis bi mu ne ko kaay dem Ndakaar bindal ko leetar na ko soo demee nga ànd ak maam Birame Sadio rahmatullahi alayhi nga dem ci Seex Sidi Laaji Omar Dramé nga jox ko ko. bi mu ñëwee jox sëriñ bi leetar bi Seex Sidi Laaji Omar mu jàngal leetar bi. ña ko Aliou Ndiaye da nga dem Màkka. Aliou Ndiaye bay ba nee du wàcc am paasu Màkka dajale ko dem verse ñëw tàggu sëriñ bi. bi mu tàggu sëriñ bi ne ko man de damaa bëgg dem Màkka. sa sëdraaji Omar ne ko Alioune Ndiaye soo demee Màkka booy ñëw mu indaaleel satala laa bëgg nga indaaleel alaaji ëllëg sa mu delluwaat waxaale jubóowuñu am génn góor gu ne ko waay waay sëriñ bi jëndal satala gi yow satala gi dañ la koo yóbbante rek walla jaalim njaay jënd satala gi mm-hmm. ñib si njaayeen ñu ganale ko ba ngan gi mat muy ñëw di nuyu si sëriñ bi Cheikh Seydi Hadji Omar indaaleel ko satala gi mm-hmm. bi mu ñëwee sëriñ bi sargal ko ba pare mm-hmm. ne ko alaaji Aliou Ndiaye noo def ak jaay katu satala ga <laughs> Aliou Ndiaye tey gémmiñ gi mu ne ko xam nga góor gën a lewoon kenn mu ne ko déedéet mu ne ko mu ne ko man xomar sọ pé. rafaat la nuy bëgg a dem mooy palaas bi ñu bëgg dem jar dem siyaare jee jërëjëf waay ñu sant yàlla bu baax alhamdulilah ñaanal leen yàlla tabarakallahu xool xool yëpp sedd nañ waaye nañu wër péng na la sax si laa jox Omar ca Kaahira hmm. ne woon yéen taalibe su ëllëgee lu mu yàlla jox ci aljana maa ngi yéen a koy bokk. cëram boobu yàlla def ko cër la yàlla ñu ci yàlla bokk. wóor nañu bëgg ne demut lépp lu ñu nekk yàlla xamal na ko. wallaahi wallaahi kon yàlla yàlla teg ñu ci siraatal mustaqim. am nañ kontaan loolu maa ngi yéen waa daayir bi yàlla yàlla jàppale leen. yàlla yàlla jàppandal ñu war a waay jàppale leen. yàlla yàlla jàppandal ñu war a waay jàppale leen. Mawlaay yàlla xalifa yàlla Cheikh Seydina Diop Mamadou Dramé ñëpp kontaan nañu. alhamdulilah di gërëm ci biir daal sallallahu alayhi wa sallam yàlla na yàlla nangu ko. wax naa nag ci turu sëriñ bi ci turu njaboot gi yëpp ci laay wax. jërëjëf ngeen mottali rek ñu julli daanaka jot na ko salaamaaleykum wa rahmatullahi wa barakatuh. alhamdulilah kontaan ngeen kontaan nañ kontaan ngeen. Cheikh Tidiane Mangaya bu ñu teesee